dugg ci diine ji yi nga xam ne moom la la diine ji laaj bu ñu paree danañ la ko wax waaye li ngay njëkk a wax mooy baat yi may wax na ko wax te mooy da ne ashhadu ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu laa sharika lahu la sharika lahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu alhamdulilahi rabbil alamin léegi nan nga tuddoon léegi ban tur nga bëgg ci diine sa imam tànnal ko shérif tànnal ko tur nee na tuddoon nañ ko fatimatu zahra bintu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla allahu akbar kon xiiwal xiiwal la ci nee na yaayam Fatima la tudd bu yàlla ommatee ba mu génn ci beneen diine ñëwaat dugg ci diineel islaam kon yaayam dana al ne alhamdulillahi rabbil alamin surtout mu jëlaat yaayam te sérif mi ko tànn xamuloon ne moom yaayam noonu la tudd kon yàlla du def hasard kon liñ lay xamal mooy gannaaw bi nga gëmee Seyduna Muhammad gëm yàlla moo jiitu nga gëm Seyduna Muhammad beneen bi des mooy nga gëm ne Isa du doomu yàlla mais jaamam la yonentam la loolu mooy lislaam boo fa jógee nag indi na innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum ñooy say mbokk jullit bu ñu bokkul xeet waaye ñoo bokk yàlla ñoo bokk Seyduna Muhammad kon say mbokk lay gannaaw bi nga defee loolu nag mooy lislaam dafa am juróomi ponk yoo xam ni na nga ko xam bi ci jiitu mooy wax nga ko léegi mooy sedd na nga yàlla kenn la muhammad yonent ndawam la julli moo ci topp tey boo fi jógee bépp waxtu boo faat te amuloo ngantal jigéen ndax jigéen bu fekkee ne ci lislaam boo xesee dugg ci lislaam di jigéen na nga xam ne règle boobu nga doon xool gis par boo gisee règle boobu doo doo woor doo julli doo woor doo julli bu dee ci koor gi nag fan yooyu ngay gis sa règle doo ci woor waaye bu koor gi paasee fan yooyu da koy fay julli gi nga dul fay loolu xam nga ko bu baax na ci bàyyi xel beneen bi ci des mooy bu la yàlla dimbalee nga am am am da génne azaka boo amee alal farata ci nga génne azaka beneen bi ci des mooy bu la yàlla may am am nga am wér am gudd fan yàlla war nee na la nga dem màkka jaamu ji yàlla subhanahu wa taala lii mooy li ñu tuddee les cinq piliers de lislaam nga xam ne benn bu ci manqué te nga man ko rek l'islam ne la génn nga ci man kon loolu nga xam ko beneen bi ci des mooy nga xam ne l'islam buñ la waxee ne ba bi nga nekkee mukallaf li boroom borom laxdari wax mooy li njëkk a war ci mukallaf mooy mu wéral ngëmam sa ngëm yàlla bu wéree gëm yàlla mooy nga jàpp ne yàlla kenn la amul bokkaale mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy nga gëm say prophètes yi gëm téere yi gëm euh, dogal bu bu neex ak bu naqari gëm malaayika yi loolu mooy ponk lislaam ponkul iman léegi nag beneen bi des mooy nga war a jàng nag suma maarifatu ma yuslu bihi farda aynihi nga war a dem jàngi safara tey jëmm les obligations individuelles yi nga xam ne kenn du la ko defal na nga fexe ba jàng nan la ñuy jullee lan mooy ci farata na nga fexe ba jàng lan mooy laab te mooy lan ñuy jàppee nu ñuy sangoo farata yooyu yëpp nga war ko jàng beneen bi ci des mooy nga fexe jàng lan mooy attey koor ak attey ya ca aju kon yii farata la kon li alquran wax baatu iqra li muy signifier mooy jàngal kon danga war a boo fi jógee daare jaa ngi nii imaam a ngi nii ñoom shérif a ngi nii ak waa ji fexeel boo amee seen kër ku la fa jàngal baax na boo ko amul boo ñëwee fii incha allah danañ la jàngal te jàppale la ko ci diine ji ndax nuñ la duñ la tuuba rek bàyyi la boo jógee rek danañu jël sa tebel téléphone koo ci woo ci ñun ci am looy laaj incha allahu ñu leeralal la ko ñoom imaam yaa ngi fi kon nag dañ lay wax ni yal na yàlla def nga gudd fan lool ci diine ji sa waajur bu jigéen nga xam ne ma la tudd xam naa ne yaakaar bi nga xam ne am nga ko ba dugg ci diine ji yal na yàlla defal la nga gis lu ëpp loolu yal na ko yàlla def bu ko defee yooyu kàddu daal moom lañ doon wax ci ndigalu imaam ndax moom imaam moom moo ñu li ñu tuddee al idnu laa yadurru ndigal la ñuy wéyee bu ñu waxoon ne taxawal ñu taxaw bu ñu ne toogal ñu toog bu ñu ne sëggal ñu sëgg kon nag moom moo ñu joxoon kii boobu bu ko defee nag ñu wax ni lii du obligation ci liñ koy jox waaye dafa baax mooy liñ too nga xam ne daanañ ko def ci diine kuy doog a dugg ñu am lu ñu la jox pour mu gën a tooyal sa xol kon bu ko defee nag kenn ku ci nekk loo mën a jël rek ñu dajale ko jox ko ko newu ne nag lii mooy tax ngay dugg ci diine ji xam nañ ne loolu taxul nga dugg ci diine ji waaye kenn ku nekk loo mën rek nga dajale ko ñu fas yéene jox ko ko bu ko defee yooyu kat rek. pour nga mën a dégg diine ji bu baax loolu rek lañ lay dénk dégg foo dëkkee ci camp bi baax na kon soo jegee see kër gi rek incha allah danga dinañ la dimbale nga jàng bu baax dégg yal na lu yàlla dimbale yàlla rabbi baax na mën nga dellu fa baax na kon